asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi mbokki internet KN TV ni ñu amee ba à chaque fois di génn di leen toppal li nga xamante ni moo di askan bi tey na dañoo ñëw fi nga xamante ni moo di Cité Millionnaire di fii si clinique Maïmouna ku ko wax xam ne clinique bu yàgg la clinique boo xam ne kenn dootu ko naatable fii si biir Tëngéej ñoom nag dañoo nekk partenariat avec ki nga xamante ni mooy la KN TV la chaîne de l'élégance ci li nga xamante ni nag moo di octobre rose bi ñu fas yéene ànd ak ñoom di leen gunge ci seen bépp programme boo xamante rek ñu ngi koy def ci biir yi nga xamante ni moo di octobre rose bi topp leen ñu ñu daal di dugg si biir rek daal di fas yéene gisanteeg ñi nga xamante ni ñoo di personnel bi ngànk wàllu liggéey bi fii si biir clinique bi. mbokk yi niñ leen ko waxee woon sànq si bunt bi ñu ngi woon si buntu clinique Maymuna bi dañoo dugg si biir na fi mu ne daal di fas yéene waxtaan ak ñi nga xamante ni moo di lee personnel bi ñu koy jiite si ki nga xamante ni nag moo di suñu yaay mu di madame Sène mu nekk directrice su clinique bi ñu fas yéene ko tàllal suñu micro rek ñu daal di waxtaan ak moom ci li nga xamante ni noonu la ñu yéenee wéyalee seen programme bi nga xamante ni ñu ngi ko jagleel jigéen ñi ku wax octobre rose wax cancer du col de l'utérus waaye nga wax cancer du sein donc ñu may ko nopp rek ba xam naka la ñu fas yéene taxawu li nga xamante ni moo di askan wi si boobu la jafe-jafe nga xamante ni daanaka bu la dalee rek yow sa fit dem na ndax derek ngay xalaat donc suñu yaay ñu ngi koy nuyu di ko tatagal di ko jaajëfal madame Sène ñu ngi lay nuyu. merci beaucoup maa ngi leen di nuyu également di ñaan yaa ngi fekk leen ci jàmm yéen yëpp avec tout avec tout Kër Ndanaan euh, di leen remercier aussi si yëg bi ak déplacement bi bon tey man pour ma xam naa ne sax c'est plutôt des remerciements euh, vis-à-vis personnel bi ndax waa Tëngéej parce que sànq euh, sama benn maître sage-femme ñëwoon na wax si octobre rose bi. ak euh, par rapport au dépistage bi ñuy def cancer euh, du col ak le cancer du sein je crois que joxe na si yi si war parce que c'était donc euh, naa kii comme le médecin chef là avec quelques responsables chefs de service je vais leur donner la parole après ma jéem a clôturer waxtaan ak yéen donc ñu donner la parole ak le Euh, docteur si Ibrahima Sey du doomu Tëngéej papaam nekkoon fii nekk un infirmier qui a beaucoup fait pour Rufisque et en particulier pour son quartier yàlla def mu former ay doomam kii nekk médecin diplômé d'état keneen ki nekk un laborantin diplômé donc ñu nekk fii dafa vraiment liggéey bu sérieux boole si ak yar nag waaw ba vraiment dañ leen di ñaanal rek on a rien à reprocher Donc euh, après sa bon, il y a quelques membres du personnel qui sont là. Bon, collègue ou, ou frère du docteur Sébi, euh, monsieur Moussa Sarr, aussi un grand, le responsable de l'hôpital basique bi. ndax euh, clinique bu nekk war na am c'est pas un grand laboratoire c'est un laboratoire basique pour permettre malade fa nekk bala ñu am intervention man leen def les premiers bilans et ça c'est important au lieu que nga leen di yóbbu fi dem Dakar surtout avant il y avait de labo à Rufisque ou bien nga leen di dugal say ambulance di leen yóbbu feneen donc dañuy yombal liggéey bi arrangé aussi les malades bon il y a aussi euh, au niveau de la maternité di topp aussi maîtresse sage-femme bi bon elle a beaucoup d'expérience aussi bon les même plus anciennes moom aussi dana jël parole ce côté maternité bi bon Il y a aussi au niveau de l'administration, ils, ils, la là, parler un peu. Après, je pense qu'on a vraiment clôturé. Remercier leen En tout cas, nous les remercions, remercier Mme Diop Vraiment, koy remercier M. Jack. monsieur Diak moom il est chaque fois muy si soucier comment ça se passe et tout daal doomu Tëngéej la Eh, ñaan ka yàlla rek lépp lu mu bëgg lu baax si tëngéej yàlla yombalal ko ko te avancé ko jëmale ko kanam kanam dégg ngeen euh, madame Sène li mu wax ndaxte nee na day bàyyi personnel bi wax ndax doo jiital nit ba pare di ka fakastal moom loolu la daal di wax ci biir kàddoom nee day jébbal kàddu gi ñi nga xamante ni ñooy liggéey fii si hôpital bi mu di médecin yeeg infirmier yi sage femme yi képp koo xam ne sa loxoon ci biir ah, donc ñu daal di fas yéene jébbal kàddu gi ki nga xamante ni rek moo di docteur si mu wax ñu li nga xamante ni moo di taxawaayam fii si biir clinique Maymuna bi ak li nga xamante ni moo di Octobre Rose bi yan jéego la ci fas yéene def docteur Seye ma lay nuyu. ñu fay nuyu ñëpp ñuy seetaan di euh, jaajëfalaat de njëkkal sunu PDG madame Sène Aminata Kane di jaajëfal képp kuy wàllu direction de la clinique a ak le personnel de la clinique di leen jaajëfal di leen wax ni Tëngéej ci boppam man moom en tout cas doomu Tëngéej juddoo fi yaroo fi màggee fi jàngee fi ba dem université am sama diplôme euh, du rafetlu taxawaayam si Tëngéej vraiment Tëngéej amul luñ koy am am nañ amal nañ ko bor bu rëy vraiment li mu def Tëngéej xam nit ñi xamuñu ma mais maxam bi dafa yaatu yaatu boo xam ne macha allah parce que clinique Maïmouna buñ koy xool d'une façon générale euh, daane ne actuellement ñu ngi ci 47 lits euh, pour hospitalisation bi te mu am na extension buy ñëw mun a spécialité yëpp lépp loo soxla si wàllum faju chirurgien gynécologie wàllum cardiologie neurologie lépp mu ngi fi te loolu yemul foofu jël xaalisam di investir si ay scanner loo xam ne nit ñi dañ daan dem ba ay Dakar di ran di toog ay weer balaa nga koy def ñu la jox ay rendez-vous gudd mu def ba ñu indi ko si clinique même waxatuma la nag ay rajo électrocardiogramme lépp loo nga xam ne boo ñëwee en urgence ñun la mën a jël def si lu ñu si war a def bu dee malade bi dañ koy évacuer ambulance benn ñaar du mu ngi fi ñu jël la yóbbu la. si nu mu gën a gaawee def si luñ ci waat donc loolu te yemul foofu am na leneen leneen ndax leneen te wax dëgg euh, moom pare bala balaa may tëj parce que dama am beneen anecdote boo xam ne duma ko fàtte mukk euh, si Covid bi euh, dañ ci nekkoon si benn période bu metti waaw am ba benn instant d'abord clinique yi daanu woon jël ñu dem ba benn instant état bi xat gis na ne il faut mu boole si clinique yi pour ñu mën a dem. boobu ñu xool tëngéej parce que tëngéej ñun fu ñu si toll suñu malaat bu ñu daan ñëw moom xoolam ak yërmandem si population bi mu ne foog ñu waxtaan seex ñi fi ñi fi nekk DGA yax ñooñu ñu fi ubbi fi benn lu ñuy wax CTE si ginnaaw bu ko district nangoo buñ ko fu ubbee wax dëgg yàlla mu génn xaalis bu bëri lépp luy matériel oxygène ay appareil ay appareil pour ñu mën a defal nit ki oxygène ak lépp mu génne si xaalis def su lu mat sëkk équiper lu met benn benn une dizaine de lits ax lu ëpp ay chambre teg lépp pour ñu mën ko jàkkaleel ñi nga xam ne ñu wàllu Covid te ñooñu ñu newoon si diggante dund ak dee maanaam ku def loolu ah, ba ñu am si réussite bu rëy parce que jafe woon na mais jàppale nañ si ay nit wax nit ñu nga xam ne nii instant yooyu amuñu woon place mais fii leen doon jël jël en charge bu ñu gisee ne xaw nañoo dépassé ñu yóbbu leen si yeneen CTE yi di si liggéey ak waa district sanitaire bu Rufisque ak ñëpp nag vraiment ak ay gorom bi nekkoon ministre ministère de la santé moom tamit mu jàppoon si bu baax vraiment ak directeur général adjoint bi ak yeneen DG yi ñu fi nekk ak personnel bi parce que liggéey bu am solo lañ liggéey si wàllum Covid loolu moom man sama premier expérience ma fi am si la bokk te loolu duñ ko mës a fàttu mukk parce que loolu lu ñu defal population bi liggéey bi ñu fa def mënuñ ko natt natt xamuñu fan la mën a toll parce que lu rëy lañ fa def parce que instant yooyu Sénégal d'abord woon nañ place amatu woon si yi nit ñaa ngi doon sonn loolu si wàllu Covid moo tax clinique may mun a moom macha allah vraiment ñu ñu amuñu luñ koy moom dañ koy ñaanal yàlla vraiment dañuy am mbégte chaque fois motivation la saa yu ñuy xëy dañuy ñëw wax mbégte ñëw liggéey parce que motivation la référence la si ñun donc te foo loo soxla boo ne nii moom du lésine pas day dem ba mu mënul parce que des fois day xaw a mettre amuñu subvention mais day jéem a def lu mu mën pour mettre en mettre à l'aise personnel bi. population ñi fiy ñëw di faju tamit nekk mën a nekk à l'aise moo waral mammographie bi bii nii sax yàggul noonu appareil bu bees la donc ñun waa Rufisque par part amal nañ ko njukkal njukkal moom max ay doomam ñi fi nekk di liggéey vraiment ñu leen di jaajëfal waaw di leen di leen di leen di leen di leen ñaan di ko ñaanal yàlla bu baax te am mbégte la fierté la vraiment en tant que Rufisquois waaw Clinique Maïmouna nag comme ni ko waxee nag spécialité yëpp ñu ngi fi macha allah. am nañ mammographie am nañ scanner électrocardiogramme appareil yëpp mu ngi fi comme ni ma la ko waxee si jagleel 47 lii ba pare ñu prévoir sax extension loolu c'est d'une façon générale présenter clinique te depuis 96 lañ ko ubbi 1996 donc vraiment mm, référence la si Tëngéej vraiment te parce que malade yi dañ daan jógee fii balaa ngay yegg jël ay rendez-vous Dakar da nga daan sonn mais loolu yëpp wàññil nañ ko coono nit ñi te yemul rek Tëngéej vraiment Tëngéej lax environ parce que da ngay dégg nit ku fu nekk lay jógee day jógee Kër Massa ñëw faju fi Mbaaw Kër Mbay faal ñun ñuy nekk si consultation yi dañu xam bar ñi sa biir xotaan fépp fépp jam ñaaw ñu nit ñi day ñëw parce que rapide liñ fi liñ fi gis fii ak liñ fi soxla buñ ñëwee danañ ko am si même jour bi demande bi te loolu bariwul te yombul d'habitude da ngay ñëw ñu jox la rendez-vous ne la jour temps ngay def lii jour temps ngay gis spécial mais fii boo ñëwee lu luñ ci mën spécial bu fi nekk lépp lu luñ ci am di ko am dem demaat xam xam sa feebar fu mu toll te mën a faju kon donc loolu daal dañ koy jaajëfal waaw toom du action bi ñuy def ci wàllu octobre rose bi lu ñu yàgg def la ma loolu rek ci Covid bi moom laa respect donc nag macha allah lii du bëreet defoon nañ ko fi organiser woon nañ ko fi di ko fi organiser chaque fois day mën a accompagner population rufisquoise bi di jàppale district sanitaire parce que tamit ñun kilifa Tëngéej ci wàllum santé district bi la si ñoom lañ dépendre moom ñu ngi ciy def liggéey bu am solo donc daal ñun dañu def di du ko di jaaf jaajëfal di gërëm personnel bi aussi parce que chaque fois que le besoin se fait sentir personnel bi chef de service yi d'abord ba si personnel ñëpp ku si nekk li nga si mën yaa ngi koy def et chaque fois ñu ngi jéem a am na ay règle règlement lépp lu ñu fi teg li nga xam ne ñi ñee koy mën a respecter si lu ñu ko mënee si wàllum setaay si wàllum lekk bi si wàllu malaat yi toppatoo yi lépp dañ bàyyi ñu dara waaw te ay réunion yi dul jeex màllum octobre rose bi rek wax dëgg yàlla xaw ma ñaata réunion lañu fi tenir diggante à partir du vingt passé ba léegi waaw dañuy préparer pour xool ba ñu bàyyi benn aspect bu ko bàyyi mi ngi xalaat woo nañ gynécologue woo na radiologue pour juste que liñ ci bëgg a def mu réussir mu jaar yoon waaw donc mois bi daal incha allah préparé nañ ko bu baax. matériel bi mu ngi en place commencé nañ ñu ngi def mammographie mu ngi dem gynécologue incha allah lundi dinañ tàmbali li ñu ko prévoir ni ñu ko prévoir mooy cinq patientes la ñuy jël par jour dafa leen test ou dépistage pour le pour le cancer du col de l'utérus voilà bu ñu si jógee tamit am na mammographie à tarif réduit ñu ngi koy ñu préparer nañ lépp commencé nañ déjà am na ñuy inscrire aussi pour waajal. Mm-hmm. ça veut dire que daal li ñu si prévoir si mois octobre rose mu ngi mu ngi jaar yoon mu ngi dërëlawu te vraiment moom chaque instant day woote xool fi affaire yi toll di la laaj ñu xool fan lañ si tool lan lañ war a def lan moo manqué ñu ne kon lii leex lii lépp lu subaar ko def nañ ko waaw vraiment macha allah pour bañ a pour gàttal mm-hmm. di jaajëfalaat e di delloo jox kàddu bi monsieur Moussa Sarr mm-hmm. comme ni ko suñu PDG waxee pour mu tënkal ñu. Euh, si si wàllum octobrose ak clinique bi d'une façon générale ndax des des des des des lu mu si mën a lu mu si mën a yokk rek incha allah waaw ni ngeen ko déggee ci ay kàddoom euh, clinique may mun a nekk na loo nga xamante ni mën nañ noo wax ci wàllu euh, li nga xamante ni moo di santé elle o au cœur du département de Rufisque waaye ba tey sax nag ci région de Dakar bi ndax maa ngi dëkk ba Sébikotane waaye samay sœur sama yaay fii la ñuy faj soo si ophtalmo bi wala ñu feebal sax ñu hospitaliser leen kon nekk na loo xamante ni fii moom ci diwaanu département bu Tëngéej kenn dootul naataable li nga xamante ni moo di euh, ngëneelam ci ci ci biir réew mi li nga ci cancer bi ñuy waxtaanee mis ngeen fay gis cas boo xamante ni peut-être nit ki dem na ba jaaxal leen à la ngeen xam ne kii moom day daal di wuy ji boroomam. waaw wàllum cancer dafa euh, buñ ko tuddee rek dafa xaw dafa nekk feebar bu bu doy waar moo waral nag lu may gënti fir firnda firndaan li ma mën a firndaande mooy gis nañ si ay cas toppatoo nañ leen ak spécialiste su nekk. parce que muy côté gynéco wala côté chirurgie général loolu lépp si lu ñu si war dañ koy def ba lu ñu si mën a def pour toppatoo malade bi dingalu ko jàppale ko dañ koy def ba mu mat sëkk waaw mbaal waale nag feebar comme feebar bi la bu dul cancer bu jot bi waxtu bu jotee moom yàlla bu soxlee moom day waaw mais nag cancer dafa nekk feebar boo xam ne lu tax ñuy wax dépistage bi am solo parce que dépistage prévention rek rek mooy traitement bi parce que cancer bu xësee ba ñëw. dafa xaw a doy dafa nekk feebar bu metti naqaree faj mën na yóbbu yóbbu coûte daf bër alal lu bëri si si nit ki ni ba pare qualité de vie am daf koy yàq dundam lu bëri daf ko si indi lu mu si lu indi ay jafe-jafe mais nag loolu nag moo waral prévention yi am solo parce que li ñu waxee prévention dépistage buñ ko téelee gis lu ñu si mën bu ko defee mooy gën balaa muy tas di law si parce que feebar bi day feebar boo xam ne bu ñu ko gisee bu ñu ko téelee jël en charge nit ki am na chance ba du ko sonal yenn sonal mais nag buñ mu ta bu dee juste fu mu war a yem mën nañ ko opérer nga am jàmm mais bu xësee ba tas si yaram bi foofu la problème bi nekk parce que boobaa nag lu ñu wax mooy métastage bu xësee ba métastage ba tas si yaram bi boobu nag jafe-jafe yi fa la ñuy nekk parce que boobu dangay def yeneen façon traitement pour xool ni ngay améliorer qualité de vie bi nit ki ni ngay def ba affaire bi du lawaat feneen ba li law bu dee mën na say macha allah ñoom chirurgien yi mën a opérer wala déet waaw d'habitude noonu feebar cancer noonu lay noonu lay tëddee noonu lay tëddee waaw d'une façon générale. ba tey ñu ngi fii rek topp ci li nga xamante ni moo di dépistage bi nga xam dañ koy fas yéene def fii ci clinique bi may jox kàddu ki nga xamante ne rek moo di Moussa Sarr mu daal ci sànni kàddu. waaw euh, jërëjëf euh, madame yi ngi sant di gërëm waa Kër Ndanaan TV ci liggéey bu am solo bi nga xamante ni ñu ngi koy def euh, au niveau de Rufisque et d'une manière générale ci Sénégal yëpp di kontaan loolu ci invitation bi ngeen jagleel suñu. président directrice générale madame Amin madame Sène Aminata semaine passée di wax ni kontaan nañ ci lool ñun en tant que employé de la clinique Maïmouna et doon ñoo xamante ne clinique Maïmouna du ma wax sax ay employé mais njabootam lañ parce que ñun loolu la ñuy cultiver au niveau de la clinique on parle de maman on parle pas de directrice donc euh, c'est loolu lañ gën a firkil voilà une famille donc. Euh, di féddali rek suñu coloré ak euh, suñu lépp euh, ci clinique Maïmouna di rafetlu lool li li fi docteur Seye wax mm-hmm. par rapport ak euh, ni clinique bi taxawee man dinaa ci sawar a wax parce que yàlla def na depuis décembre 2007 laa ñëw Tëngéej liggéey moom fi indi ma ñëwee def ak moom entretien mu jël ma man ma Tëngéej mm-hmm. mais bi ma ñëwee boobu ba léegi aussi tamit ma gis koo xamante ni. je ne parle même pas de euh, sur le plan de la santé mais maanaam vision man moo ma yéema ma nekk ndaw mu tàggat ma jàngal ma lu bëri jox ma confiance dinaa nettali parce que lu bëree bëri docteur Seye ñëw na si mais dama leen wax ci dimension nit ki ak nan la mën a booster ay xale ba nga xamante ni génie bi nekk si ñoom mu génn ko ñëwee di may wax ne ma man de doom toogal ma toog mu ne man de dama bëgg indi. Euh, defal benn unité rajo service rajo ci clinique bi scanner sax bu ci xajee ma def ko maa ngi naan waa man maman moom <laughs> ni muy wax nii moom loolu sori na de mais ma gis ni moom lu mu gëm la ñu tenu ci ay réunion tenu la ci ay réunion mu def mu indi table rajo indi scanner def deuxième bloc opératoire te li may wax lu tax mu am solo mooy pour la prise en charge lépp dañ ko def pour euh, population Tëngéej population Sénégal d'une manière générale parce que la clinique a bu leen euh, ñu bëri dañuy jàpp ni Tëngéej Tëngéej clinique a de Rufisque mm-hmm. mais fii ñi ñu fiy jël en charge waxuma la sax au niveau du Sénégal mais sur le plan au niveau de la sous-région ñi ñi dañu fiy jógee di ñëw gis nga kii am na xam naa duñ ko gis am na benn chauffeur bu nekk fii mm-hmm. jóge na fi jëli ji malade aéroport Léopold Sédar Senghor dugg na ci avion bi fu lañ ko jëli indi ko directement ak ambulance clinique indi ko fii traité ko kon nga xamante ni kon fii c'est en terme de référence structure la boo xamante ni wax dëgg neex yàlla nit ñi ñu ngi ciy gis seen bopp te yàlla mi ngi ñu suturaal aussi tamit euh, ñu ngi ciy def euh, bay suñu waar ci euh, lu ñu naan système de santé au niveau de Sénégal donc loolu moo tax bu ñu demee ak dimension ki nga xamante ni moom moo ko yor nga xamante ni tëngëj la nekkoon muy madame seen am loo xamante ne da ko yéene askanu tëngëj samp mel nii yàlla di dem muy def social aussi tamit ñuy dem ba octobre rose bi comme ni ko docteur Seye waxee mënul woon ñàkk parce que moom nit ki moo ni ni mel donc mu doon loo xamante ni du ko di fifi boppam malgré li muy xat-xat-xat ak malgré son ak yëpp mu impliqué wu si impliqué si ñëpp pour que rek waa Tëngéej mën a gis seen bopp ak lii nga xamante ni mooy fléau bu cancer bi nga xamante ni ñu ngi def ravage ci maanaam ci jigéen ñi yëpp moom ni muy béyee waaram ci wér gi yaram si Sénégal mu ne lii aussi tamit comme na mu daan def day continuer def ko te man ma jege ko xam si lu bari parce que mammographie bii nga xamante ni moom la mujjee jënd xam naa lim daj pour indi ko parce que ces investissements là c'est des investissements lourds et ils ne lésinent pas sur les moyens parce que docteur Seye wax na ko léegi man je me rappelle en 2000 2000 2016 am na benn échographie bu ñu doon jënd ñuy liggéey ak techniciens yi ak ñi ñu koy jaay bitim réew bi ñëwee ma dem seen gamme bi gën a cher moom la jënd parce que nee na ma man du ma jënd lenn lu dul qualité il faut que nga wax leen ne caractéristiques yii ak yii ak yii ak yii bu fekkee am na ci appareil bi je suis preneuse bu ci amul nag moom ñu dem seeti ji leneen pour vous dire man euh, loolu daf ma impressionné woon et elle a toujours fonctionné comme ça donc lu baax la bëgg lu baax la yéene askanu askanu Sénégal lu baax la yéene askanu Tëngéej ba tax na comme ni ko docteur Seye waxee xam nga nga ñëw dugg ci béréb di faju mm. ñëw hospitalisé fii lépp la soxla comme yi nga xamante ni boo demoon ba Dakar amaana dinañ la jox rendez-vous 3 mois pour nga gis spécialiste bi mm. yow nga ñëw toog fii hospitalisé fi gis lépp ñu defal la si examen li na examen et au diagnostic concerne au niveau de euh, du scanner rajo mammographie laboratoire lépp lépp comme labo basique la nga xamante ni au moins dinañ la wàññil déplacement yi nga xamante ni doon nga ko doon def bitim réew ak coût yi parce que lépp coût la donc euh, loolu lu am solo la yaakaar naa ni population Tëngéej ñu ngi ciy gis seen bopp population Sénégal ñu ngi ciy gis seen bopp ñun nag euh, comme en tant que employé ah, dañuy continuer di koy ñaanal parce que bu amee risque yi nga xamante ni moom ñeme na ko jël di investir te faites le tour dem leen daaw xamal xam am feneen mais dugg leen clinique Maïmouna ngeen xool moyenne d'âge ay jeune de rien du tout ay jeunes de rien du tout moom lay jël responsabiliser jox leen ay moyens ne leen maa ngi seen ginnaaw foo dugg service boo fi gis ay jeunes lañ xam nga ne kooku mi ngi wax seulement mi ngi bay waaram ci ci ci ci ci wérgu paj bi meeg lépp mais mi ngi bay waaram aussi tamit pour xale yi nga xamante ne ñoom ñu nekk au Sénégal ñoom fu ñu mën a suturloo ñaata nit a fi jaar. stage ba mën a mokkal seen liggéey dem ñii ñi ngi bitim réew ñii ñi ngi ci yeneen structure au niveau du Sénégal ça c'est une fierté dañuy toog fu ñu mën a dem dans l'intérieur du pays dañu fi gis des anciens collègues yoo xamante ne on s'est connu au niveau de la clinique Maïmouna donc loolu grâce à moom ak euh, njàmbaateem ak bëgg lu baaxam loolu moom moo tax loolu mën a taxaw donc nag ñun ñu ngi continuer di ko am ni ma wax di koy di koy ñaanal et dinañ continuer ci kàttanu yàlla di koy accompagner ba yi nga xamante ni moom mooy mbébét boo génnee clinique may mën a boo génn gisee si kaw yëgee ci kaw di nga gis mooy ay projet yu luur te ma xam ci dara yoo xamante ni am doole la te dara tax ko jóg lu dul mun see gis seen bopp donc euh, euh, euh, loolu lu am solo la donc gis nga même même bloc opératoire yi gis nga bloc opératoire yi tant que gynéco rek lañ doon def mais biñ demee ba xalaat ne Tëngéej dafa bëri ay sociétés yoo xamante ni ñoo ko wër département de Rufisque laa wax d'une manière générale dafa jël xaalis bu bëri investir sur un deuxième bloc ñu def ci ay réunion d'investissement def lépp ñu dem jënd ji ay appareils yu bees tax aménagé waat jël ay spécialistes ñu aménagé waat euh, lu ko yi ut ay conseillers ñu conseillers ñu ñu taxawal deuxième bloc boo xamante ni li ñu naan ay amplificateur de brillance matériel yu bëri am nañ si mais juste pour vous dire vision de la maman nga xamante ni fii peut-être dina am ñoo xamante problème moom trauma dafay dafay bëri ci département parce que entreprise yi dañoo bëri indi amplificateur de brillance ñoo teg ñëw équipé waat ñaari bloc yëpp dem ñu boy ba macha allah fii ñuy wax ak yow voilà fi ñuy wax ak yow dañuy ñëw di fi def intervention yu bëri au niveau de de la clinique Maïmouna dañ fiy def ba intervention yi ngeen gis tugal nga xamante nit mun nañu opérer nit ki te duñ ubbi am na fii loolu am na fii au niveau du bloc de la clinique Maïmouna pour vous dire que la madame seen ku am vision la madame seen ku bëgg lu baax la madame Sène ku bëgg ku yërëm ak ku nangoo sonn ci askan la donc am na leneen yeneen dimension yoo xamante ni man dama ko fekk ak moom peut-être que suñu yaay yi nga xamante mu ñu dëkk ak moom ci dans d'autres domaines mais ñu koy gis mu koy def aussi tamit parce que am na ñoo xamante dañuy ñëw dañuy fekk si au niveau de la clinique am na lu loo xamante ni sax si côté boobu dinaa ko ci yokk gis nga li ñuy doon benn labo bu basique sax boo xamante ni tout dañuy jël euh, en charge ñu fi nekk pour bañ leen euh, jël ñu dem Dakar di di def yenn examen yi mm-hmm. pour rek prise en charge bi mën a gaaw dafa ni ah lii de en général ñi ñu jël lettre de garantie wala ay imputation yooyu mais man comme Tëngéej laa dëkk doomu Tëngéej ji dañ leen a wàññil yenn examen yi lii lañ koy defee mm-hmm. loolu man j'en suis témoin te gis naa mu defal ko ay doomu Tëngéej yoo xamante ni wax dëgg neex yàlla lu lu lu am solo la loo xamante ni non seulement mu ngi leen indil plateau médical boo xamante ni nañ ci mën a gis seen bopp mais mi ngi leen di jàppale aussi sur le plan social donc euh, loolu daal mënuñu kon ñàkk wax fekk si lii docteur Seye yi nga wax nga xamante ni euh, clinique Maïmouna doon na ko au niveau du département de Rufisque te boo demee au niveau du district aussi on va vous dire la même chose kon mm-hmm. ni liggéey bu am solo bi nga xamante ni ñoo koy def pour rek mën a jël en charge la population rufiscaise euh, la population sénégalaise d'une manière générale mhm. donc nag kàddu yoon lañ ci gënoon a toll di leen sant di leen gërëm. macha allah monsieur Sarr dégg ngeen kàddu yi mu wax waaye man li ma si gën a téere mooy li nga xamante ni mu di social bi nga xamante ni moom mu ngi koy def mu di mama madame Sène mu nekk loo xamante ni lu am solo la si askan bi waaye li nga xamante ni tamit euh, ku wax feebar di nga wax analyse di nga wax yenn li nga xamante ni moo di examen yi wala yenn rajo yi te loolu da nga daan. paas tout une journée yendu Dakar dem di ko fa defi des fois sax boo demee ñu jox la ni mu ko waxee rek rendez-vous boo xamante ni maara day taali day yokku sa stress su maladie ba stress boobu sax mën na laa yóbbu te fekk maladie bi sax yóbbu la donc loolu dafa am am solo bu baax a baax boo nekkee ci bërëb di béy wàll ci benn pàcc ba fa nga nekk rek da ngay góorgóorlu ba ña ngi koy defar ñu gis si seen bopp te yaakaar naa ne nag may mun a moom ku fi ñëw rek di nga gis sa bopp si baax a baax ci paj mi nga xamante ni moo la fi indi ci wàll bu mu mënti nekk nag ñu daal di jàll rek ba tey rek ci fi nga xamante ni mooy ci saal bi ñu toog rek kenn ku nekk rek mën na cee sàddu kàddu. Ah, mama maa ngi lay nuyu di la dalal fi nga xamante ni moo di seen octobre bu rose bi ngeen di def nga sànni si kàddu rek ci li nga xamante ni moo di waxtaan bi. waaw maa ngi lay fay di leen gërëm yaak sa équipe ci fekk si bi ngeen ñu fekk si fii tey clinique Maïmouna kontaan nañ ci torop torop torop <laughs> te nag di leen wax. message bi jàll na ndax depuis ce émission bi pareegul sax am na ñu ñëw di inscrire waaw am na ñu ñëw di inscrire pour euh, mun a comment am euh, ci bokk ci dépistage bi waaw na clinique bi euh, yàgg mag madame Sène def nañu vingt cinq ans man itam ba mu fii ñëw nekk xale bu ndaw ndaw ndaw waaw nekk maternité ndax moom mii sage la te ba léegi mi ngi liggéey ba léegi bu xëysee jubal na maternité mooy domaine am moo ñu ci gën a xam lu bare bari bare sax mënuñu ko dab def tuuram lu mu gis lu ñu fàttee wala lu ñu omet mi ne leen nii wala nii wala naa di def it bu bari loolu foog ñu wax ko social bu bari ak commencé par ñun ñii dégg nga bàyyiwul fin d'année bàyyiwul 8 mars bàyyiwul gàmmu ba tey nii nii octobre rose bi ni mu ci jublu kon boobu ñu ko ciy gërëm di ci sant bu baax a baax a baax waaw am na itam anecdote bu nga xam ne am na bës ku ñu jubal fii ne dafay wasin xam dafa amateet ne ginnaaw euh, impôt mu juum ñëw fii mu ñëw fii rek wasin man mii la fi fekk ñëw rek wasin xam nga duma ko ne demal wante bu ma xëyee suba ne ko am na démbkat kat ku basin ji dafa jonkar ne amul daara ndax fii clinique la dafa ma ne defar leen ko ba mu baax ngeen bàyyi ko mu dem beneen yoon it am na ku doon dem tukki ba ci juuti ba am du la ñu indi ko mu fekk fi doomam bu góor ma ne ko kii de itam dafay wasin doom ji ne ma defar leen ko ci ëllëg sa dafa dem à côté jëndal bébé yére jox yaay ji paas ne ko continuer sa voyage xool rekk yooyu yëpp yëpp yëpp am na fi nag ñu nekk maternité di liggéey wax dëgg yàlla di moytu di jéem a fexe ba zéro décès maman ak bébé ndax loolu itam dañ koy bañ te moo fi am wax dëgg yàlla octobre rose bi itam ñu ngi ci war dox bu baax a baax a baax ndax xam ngeen ne mos cancer bi moom li muy rey bare na daaw moom xëy na ñu ngi woon à 3500 dépistage ren xamaguñu ndax commencé guñu wante ñu ngi ciy jublu bu baax a baax a baax suñu gynéco yi ñu ngi ci ñun mi itam dinañ ci kii ndax euh, bu ñu dépisté bu ñu gisee lu suspect dañu dal di def euh, frottis bi mammal mammographie bi itam mammographie baa ngi fi femmes yi bu ñuy def consultation dañ leen di dal di jàngal sax ñoom seen bopp naka nañu waree seet seen ween yi autopalpation bi nekk lu am solo yaa booy ñu lay nuyoo di la dalal yow tamit ci li nga xamante ni moo di tey suñu tànk fii ci biir kër gi mooy fas yéene jàkkaarloog yéen ngeen wax ñu li ngeen xamante ni moom ngeen nar a dérouler seen li nga xamante ni moo di dépistage bi ngeen fas yéene def à partir de lundi. ñoo ngi leen di nuyu Ndanane TV di leen sant di leen gërëm di kontaan seen liggéey rafet na toujours ñu suivre leen Astou Gueye madame Camara madame Ibrahima Camara madame la maire madame seen nag sama yaay la yaay ju baax ñun nag dañu ñëw sax yem ci ngeen ne fi ñu ne comme yéen a ngi fi il faut ñu ñëw duñu dem te waxuñu suñu xalaat ci moom moom moo ñu moo ñu jur moo ñu yar moo ñu tegte moom ba mu dalee def lu baax du tey madame Sène ba mu yoree clinique yaakaar naa ne dama ne xëy na boobu 13 ans la am xam nga 13 mënoo liggéey mais boo commencé def lu baax moom yàgg naa doon docteur te jàngul docteur yàgg na doon sage-femme te doonul sage-femme kon moom ni mu mel daf ko judduwaale si deretam la nekk. kii ba mu waree ba mu waree faj faj na ba mu waree defal nit ñi si jàmm defal na leen jàmm madame Sène war na mën a doon président de la république ndax tëngéej gi li mu fi def di ko fi wax kenn defu ko fi kenn waxu ko fi waxuma waxu sante bi de ndax santé bi mu ngi faj mu ngi jàppale waaye nit ñi sonn ñi am problème ñi sonn feebar madame seen dafa yor clinique am yor clinique si biti muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw madame mu ngi faj si clinique bi waaye mu ngi faj ñi nga xam ne dañu am feebaru sonn feebar yi dafa bari taw wuute te jamono metti di nga gis ku bëgg añ doo añ gis ku bëgg reer doo reer gis élève boo war a jàngi amul lu mu fayale doomam moom muy soxli si yooyu di ko def dinañ ko wax docteur yi wax nañ li li mu war a def fii man mii di doomam man maay wax li muy def si tëng tëngeej yow maanaam tey jii sa kàddu ci madame seet mooy social bi muy def ci mbedd mi social bi sax am na leneen tam lu ko lu ko lal mooy ngay def te buggoo ko ko xam dina ma mere nag mais dinaa ko wax ndaxte tam ñu ngi ñëw ñu ngi fiy faju li docteur yi wax it dëgg la li yokk si clinique bi bari na mais li yokk si ginnaaw clinique bi am na ñoo xam ne mën nañu ñëw fay pour fay mais moom xam na loolu ba day am ñu mu jël ne ñu seet ñi néew doole si ginnaaw te mënuñoo agsi si clinique bi ñi néew doole si ginnaaw te war a lekk lekkuñu même ñi nga xamante ne sax dañ leen war a opérer si yeneen hôpital yi ne amu leen ko mu nëbbatu indi leen fii kon madame seen li muy liggéey si Tëngéej gi ak Dakar département bi bari na dañ koy ñaanal rek wér ak fan wu gudd ñun suñu yaay ay mag lañu mais ku nekk rek bu la yóbbul màkk benn yoon yóbbu na la màkk ñaar yoon su la am umra benn yoon robbu na la umra ñetti yoon Pape Omar Fall la ngi toog seede na ma kon nag lu baax li ngay def seen yàlla na la ko yàlla fay nun li mu def xam nañ si ndax yaay da leen jàppale sunuy maam mu jàppale leen suñuy moroom sax da leen di jàppale kenn du ko yëg madame Sène dama ne ministre de la santé sax bu tëngéej moom sax tuuti na foofu ndax day def te kenn du ko yëg li muy def si clinique bi li muy def si ginnaaw moo ko ëpp kon nag seen yow ba nga daree faj boobu amee dip amoo diplôme mu sage-femme ba nga juddoo nga commencé faj di def lu baax ba nga toll fii yoroo clinique bii rek de da nga yor clinique bi si bii bii ñi fajo yor clinique bi si ginnaaw ñi nga xamante ne ay gor lañ te kenn mënu leen gis li nga yor ëpp na fukki clinique yàlla na la yàlla fay loolu rek laa amoon lu may wax jaajëfal yow tam kàddu yi rafet na ci témoignage bi nga xamante ne defal nga ko kii di suñu yaay ji di madame Sène aha ba tey rek ñu ngi wéy ak ci waxtaan bi rek euh, ñu am fi keneen rek koo xamante ni fa seen ci sànni kàddoom madam maa lay nuyu nga présenté wu. Ah, jërëjëf maa ngi lay fay maa ngi tudd madame Seck Oumy Ngom comptable ci clinique Maïmouna ñu ñoo nekk administration voilà pour bañ a gudd rek li ñu wax si madame seen yëpp loolu dëgg la. waa ñun nag ñoo yor tout ce qui est administration donc euh, liggéey bi waaw liggéey bi daal madame Sène yombaloon nañu ko parce que tout ce qu'elle euh, lu mu ñuy wax tout le temps mooy il faut être une femme battante donc comme si moom la ñuy roy donc voilà quoi ñun affaire bi dafa ñu ko yombalal yàgg nañ fi nag ñu nekk ay jeunes comme ni ko docteur waxee ay jeunes rek la fi jël waaw ñëpp on est bi moom ay 40 ans la donc euh, boobu léegi ñu ngi liggéey ak moom Euh, association bi li ñu fi wax fii ku fi retraité da ngay dem mag xam nañ si dara association bi am si ñoo xam ne seen billet yi du mat sax moom da koy complété parce que loolu man maa koy dox donc man mën naa cee wax mu ngi noonu ji su bëri am na si ñoo xam ne dem nañ ci màkk seen passe matu moom moo koy complété bu ñuy dem màkk aussi seen euh, visite yeeg yëpp ci lañ koy defee médecins yi ñoom ñoo koy def voilà administration bi aussi ñun tamit noonu waaw ñuy voilà suñu yaay la daal moo tax ñu koy woowee maman fii madame Sène moom yéen a ko fiy wax ñun ñun maman rek <laughs> la ñuy wax voilà mi ngi noonu daal mu nekk suñu suñu référence suñu idole waaw ñu koy tiitoroo daal donc yéen naanaan amuñu seen fay parce que yéen ñu ko wane ba ba léegi ñu ngi bëgg lii ak turandoom ami kan Aminata Kane Cissé nga xam ne tey fekk ko fi waaw moom tamit dara la daal ci yëf yi waaw mu ngi noonu ah. suñu suñu directeur tamit di doomam monsieur seen Mamour mhm. voilà jàngal ñu administration fu ñu dem voilà dañuy dañuy jox cër voilà loolu moom ñu ngi ko koy gërëmee ñu ngi ko koy remercier waaw di ñaan affaire yi yokku waaw octobre rose bi aussi ñu ngi ciy taxaw dimbali jigéen ñi suñu morom jigéen parce que cas yu man am naa si cas am naa sama cousine boo xam ne ni elle avait 20 ans bi muy bi muy bi muy décédé ci kii bi donc voilà ñu xam nañ lan la daal waaw ñu leen di sant nag di leen gërëm voilà di leen remercier waaw gis nañ daal liggéey bi ak ni ngeen taxawoo madame Sène loolu moom kontaan nañ ci lool waaw man keroog émission bi sama belle sœur yi nekk Italie yëpp dañu ma doon woo pour bëgg a dugg si bëgg a dugg si émission bi ñu ngi noonu jaajëfal nañ leen daal remercier nañ leen bu baax lay nuyu di la dalal ci li nga xamante ni moo di tey suñu ñëw fii di jotaay bi ñu amal fii si clinique Maimouna ma lay jox rek nga sànni ci sa kàddu maa ngi lay fay soxna si di nuyu bi ñu fekk fii docteur personnel bi ak yow nga àndal ñëpp eh, di sant yàlla bu baax kon ni ko soxna si waxee <clears throat> dañu ñëwoon jaar fi fekk leen fi ah seen wax nu lii xew loolu occasion la ñaan yàlla woote bi yàlla na ko dégg parce que madame seen bëggul lu nit moom na am jàmm rek parce que lii ko war rek la def d'habitude euh, loolu muy jikkoom man yàlla def na yàgg naa ko xam maa ko xam en 81 alors boobu ba léegi aussi tàgguwuñu benn yoon mais fa mu teg tànkam loolu moom la ñëpp seede jigéen la joo xam ne non seulement baax na mais yàlla jox na ko mu doon ku am jom koo xamee ne ku bëgg dara la fi mu jaar yëpp mën naa ko nettali parce que yi ma fekkee soriwu ko woon def mu nekk hôpital yu géej ba clinique bi fi ñu toll fii mais. macha allah njàmbaarte def lu baax rek la ko la si gis yàlla fay na ko te yàlla dina gën a fay parce que xolam moom foo ko natt si lu baax rek alors ñu euh, nga fekk lu ko raw euh, si seet te waxtaan bi am fii maa ngi dabu ne donc madame seen alors euh, jàngal nañu lu bari parce que alors di ko dalee Dakar alors Daara Jolof. àndoon nañu fa moom tàntal yonante bi damay nuyu si passage oustaz Moustapha Gaye mais di ñaanul waale ñi xam ne ni suñu kilifa lañu te ñoom ñëpp ñu ngi uuf woon ci ginnaawam ki di alaaji gànn fay ki di commandant sawaare ak jigéen ñi ñeneen ñu bare bare bare tey jii mu ngay liggéey ak Marem Samb mu ngay liggéey alors ak madame euh, kii Nafisatou Dramé ñoom ñëpp ñu ngi oeuvre ci ginnaawam mais teewul action bi mu commencé woon au début ça fait presque plus de vingt ans da koy yokk clinique bi fii dañ daa réunion mais boobu moom këram moom fi la dëkk yokkute am na tey dëkkatu fii ah loolu sant yàlla la mais loolu def nag aussi li muy dimbali nit ñi la ko yàlla di fay di sonn si nit ñi la ko yàlla di fay association bi xamee ne mooy Mouyenoul Rassoul te mu jiite ko mën naa wax ne mu ngi si 2000 membre mais chaque année bu ñu nekkee jubee koor fii lañ ñu tase lépp du si war si préparer alors tirage yu màkk yi moom mi dana ko mais mën naa wax ne li si ëpp alalam moo si dem lépp nag pour nit ñi gën a naab seen diggante ak seen borom parce que am na ba tey bàyyi ñu ko chaque di fii la ñu tase ah oustaz alors Moustapha Gueye lu jaaxal doomu aadama si lislaamam mu ñëwee laaj ko fii comme ça ñu réglé ko fii Moussa defal loolu seen Sène mënoonu ko fay dina ko ñaan yàlla yàlla na ko yàlla fay parce que loolu muy def nit ñi nàmp nañ ko si moom chaque fois que ñuy organiser fii conférence bu fa ñëwee da fekk dund bu bari ak lii xam ne day gunge dund bi bu ñu conférencier bu pare ñëpp dañuy ñëw ku nekk taxaw lu si sa madame seen defal ko du ñibbi nag moo mënu fay des bu timis kenn ku nekk bu dee saako ceeb bu dee sucre bu dee diwlin lépp dañuy compter tekk sa loxo mais am na yaakaar ne loolu muy def yàlla dana ko fay parce que loolu lépp pour dimbali doomu aadama la bokkewul nag ak ñii xamee ne mag moom dafa yor ay mag ñooñu seen yaram toujours mu ngi gaalu surunte mais gis gisuma si kenn koo xamee ne am na si yow njàmbat nga ñëw si moom tere ko d'ailleurs moom lay song sax ne la bu subaa nga jaar clinique ñu nga xam ne dañuy dem màkk ñëpp mu leen di préparer fii préparer leen alors physiquement préparer leen alors seen santé ah, ndax ñoom ñu dem lu si waay mën a am problème moom mooy taxaw rek régler ko donc loolu la yàlla nattoo mais nag aussi di sant yàlla yàlla jox na ko njaboot gu dal njaboot gu baax njaboot gu ko déggal te moom ñëpp la xaritoon ñëpp la xaritu yàlla moo ko dénk loolu mais nag c'est une personnalité boo xamee ne amul kenn koo xam ne yaa ngi tëngéej gi te wax fa dëgg yàlla amuloo ko njukkal nouveau des maires xam naa digganteem ak maire yi bëri fi jaar président Mbaye Jacques ma Barthélemy Maya Sène Daouda Niang ñoo ñëpp madame Sène diggaale na ak ñoom mais damay wax ne ñoo ko ameel bor au nom de Rufisque waaye moom deselul kenn bor parce que lu ñu si mën a bëgg du xaar kenn moom boo ñëwee lii xamee ne mooy alors slogan fajkat laaj xaalis da faj ba pare door toppatoo si yow xaalis loolu nag vraiment loo ko yàlla defal la man de vraiment maa ngi koy gërëm di ko sant fi laay fajoo sama njaboot fi la ñuy fajoo njabootu ñeneen fi la ñuy fajoo te lii may wax dama ko teewee ñu jóge nañu Kayaar fekk ma fi ñu jóge nañu Sébikotane fekk ma fi ñu jóge Bargny ñëw fekk ma fi ñu jóge ba Daara Jolof ñëw mais kenn mësul dégg madame Sène Rouspète toujours mu ngay def loo xamee ne yàlla rek moo tax te baatam du ko yëkkati saa yu nekkee nag ak membre association bi toujours amul xalaat mais da yéen naan lu seen xalaat yéen bu fekkee alors joxe na seen xalaat moom mu jël xalaatum teg si jël alalam teg si woo ay nitam nañu kaay leen jàppale ma donc ku mel noonu lui devons beaucoup de respect parce que c'est euh, euh, yàlla li ko yàlla dénk te lu nekk nit ñi parce que waxuñu juddoom te nga la dëkk femmes yi tey maire yi su leen fekkee tey ñu taggal ko ay maam xam na loolu xam na ne aussi dafa war a marqué empreinte am si dëkk bi def na loolu loolu nag bu fekkee ne nit dafa nekk si dëkk bi te defu ko moom mu xam ko def war garam ñu wàcc na ñëpp ak ñaanal chaque année fii la ñëpp di daje wàcc ji kaamir ñaanal ka ñaanal ñi ak ñi jiitu mais moom alalam du ko fekkee alalam toujours moo si dem man loolu man sedde naa ko donc euh, tey boo fekkee événement dafa am ñu ñëw yem si mandat soxna si di doomu maam Yacine maam Yacine di kenn si madame Sène alors ñu yem si lu mel ni ah madame Sène kon nañ si barkeel di ñaan yàlla suñu borom bi eh, yal na yàlla nangu woote bi ñëpp ñëw alors si dépistage bi di gërëm alors équipe médical bi nga xam ne ñoo fi nekk di gërëm aussi personnel am bi fi nekk des fois y a des missions ñun man daf may dugal si mission yi na ma Omar demal nga ànd ak ñoom doxit soxla ba bu ñëwee ñu def compte rendu mais nag ku fonk liggéey la waaw ah, affaire yu traîné wala ay caaxaan yooyu waxu si dara waaw ah, man loolu laa ko nawee waaw ah, bu dee liggéey rek góor góorgóorlu jàpp bëgg nit bëgg nit avancé joxal ma dem seen ku nekk si boor moom say caaxaan na nga ko garder fële loolu nag xam naa ne macha allah yàlla def nag sutura yéen nag maa leen di gërëm c'est boutan bi moom nga jógee xam ne kii madame Sène waaw asalaamaaleykum jaajëfal papa dégg ngeen kàddu yi rafet yi mu wax waaye ba tey rek mu nekk loo xamante ni dañ koy daal di tëj rek delloowaat kàddu gi ki nga xamante ni moo di suñu yaay di madame Sène mu daal may nuyo le ministre de la santé et tout son ministère euh, le médecin chef bu district bu Rufisque mes collègues euh, du corps soignant yu nekk ci poste de santé yi hôpitaux yu nekk dans le district di ñaan yàlla sama kàddu fekk leen ci jàmm ah di wax na rek ah, mais avant de commencé quand même maa ngi gërëm samay waajur sama yaay bi nga xam ne moom laa tuddee clinique bi eh, ndax man dama juddoo Tëngéej sama yaay juddoo fii sama maam Ndeye Maram Samba moo moo ma yar lu si bare moo ko def si man euh, muy rakku xaali Ablaye Samb euh, moo xam ne moo nekkoon le président du tribunal musulman de Rufisque la Kadi dëkk fii coxo si ginnaaw seen euh, kii bi nekk waaw njàkk coxo bi moom moo ko samp donc di ñaan di gërëm aussi di ñaanal sama borom kër ki jur sama doom yi Abibou Sène di ko xam ne def na lu bari si man yërëm woon na ma jàppale woon na ma ba ma si fii euh, di ñaan yàlla rek yàlla yóbbu yërëm yokk leen yërmande yóbbu leen euh, fi raw si nekk seen kër ah di gërëm aussi sama borom kër xam ne moom moom yàlla def mu nekk ak moom Boubacar Samake euh, ki ma ki ma soutien ak doomam Aminata ma su ma ñaat ñu suma bàyyi su ma nekk rek mu ngi si ma koy ñaan moom tamit ndax jëkkëram ah, di wax personnel bi su ma egsee fii ba mu nekk une clinique de référence c'est grâce au personnel da benn rek mënu def dara lu ma am am volonté euh, lu ma am am moyen alors que les moyen ne sont pas toujours du ma mën ma egsi fii sans ñoom di gërëm médecins yi nga xam ne jaar nañ fi yëpp euh, les médecins spécialistes les gynécologues Euh, ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm ak ñi nga xam ne ñu ngi fi actuellement euh, di xam ne bu ñu amee spécialiste yu nga xam ne amul amul si yeneen clinique yi fii euh, loolu du si man si yàlla la yàlla dimbali ñu parce que nit aussi dafay am ambition peut-être que loolu moo def sama force ndax bi may démarré di ubbi bloc opératoire am na ñoo xam ne dañ ma daan ñaawal naan buy elle est ambitieuse cette femme là parce que bloc opératoire chirurgie da ngay liggéey pour les médecins mais bu fekke ne da ngay seet aspect pécuniaire bi doo avancé man population bi laay jiital parce que je me suis population bi li tax ñu dem Dakar bu ko amee fii mais dañuy toog bu ñu ne nit ñi baax sama collègue yi xam ne dañu nekk Dakar kii clinique clinique du di et consort ba ñëw finalement mais pourquoi investissement bi nga def ko à Rufisque mën def Dakar man leen et pourquoi pas man Rufisque laa dëkk donc bu ma sañoon Rufisque mooy gën ci Sénégal donc yàlla jàppal ma si loolu ndax nit manu man sans manu ma dara sans yàlla ku si nekk tamit yàlla moo lay moo jàpp teetale aar la gidde la ba fi nga bëgg a àgg nga àgg fa gëlloon si samay waajur bu baax nag waaw di gërëm sama personnel bi médecin yi sa kaw ba si suuf maman rek lañ may woowee dañ ma respecté ku ma si ni soxla naa la nekk sama kër bu ma dara okkee sax dangay bàyyi looy def nga ñëw surtout docteur Sey mii amul benn heure boo xam ne dama koy ragal sax wax dara soo ko waxee mu ne non maman maa ngi ñëw ma ne ko non c'est pas mais lu mu bënk mu ñëw cardiologue bi day ñëw jóge ba Thiès ma ne ko non mais c'est pas la peine mu ne non non maman ñun bëgguñu dara jot la docteur Wende bi nekk fii sama doom la aussi. c'est le seul euh, comment on l'appelle encore orthopédiste ci parce que mu nekkoon augi euh, bu Dakar léegi nekk dans le privé nekk fii am matériel bi adéquat clinique yi si des yëpp bu amee ay malade dañ leen di transféré fii donc ñu sant yàlla si loolu may wax aussi si ma collègue yi nga xam ne sont dans le privé yor ay clinique liggéey bi liggéey bi ñoo ko bokk ku si nekk man nga baaxal sa morom mm-hmm. spécialisation boo amul mm-hmm. nga yónnee ko sa morom vice versa mm-hmm. te ku si nekk rek si wërsëg rek ngay am di yéenante jàmm waxante jàmm liggéey si jàmm ak sutura waaw yàlla barkeel ñu ànd nekk benn bay def xol yi nekk xol yu baax ku si nekk di seddal sa morom lu baax loolu loolu moo am solo ndax Sénégal loolu moo koy avancé loolu mais taxaw fii di critiquer di wax lu dul loolu loolu daf lay delloo ginnaaw te loolu xale yi ñun ñoo leen war a jox de bons exemples parce que ñun bu ñu am amee un comportement adéquat mhm. ba ñu jiit xaalis insiste ci la valeur mhm. xale yi si suñuy lox suñuy tànk la nekk Sénégal day avancé parce que ñun si xale yi lañuy yaakaar fu ëllëg ñu yóbbu Sénégal fii xam nañu ñun mën ko mën a yóbbu donc loolu mënta bàcc bu bàyyi xalaat la xel loo na bàyyi xel la waaye léegi nag euh, kër naanaan mhm. Ah, vraiment gàcce ngalaam dañ leen di ñaanal vraiment ma je suis très fière parce que xamuñu woon sax na am na sa rajo télévision ah, bu am fii te mu mel nii ah tout début nag est mais il faut persévérer waaw parce que il faut persévérer avec le travail on finit par triompher de tout et la patience voilà euh, nee naa ñun liggéey bi ñu yàlla def ñu nekk si soo ko bëggulee rek doo ko man def soo yéetalee boo yéetalee xaalis aussi doo sori te dafa daa ne médecine mhm. boo ko choisir mhm. bon c'est un métier vraiment très noble c'est comme l'enseignement mën nga si am tuyaabe ko mën nga si am bàkkaar nga noo góorgóorlu ba am si tuyaaba lépp lu baax loo defaral nit malade mhm. yow da ko fàtte de mais malade bi du ko fàtte ndax nit bu lu nit defaree lu baax doo ko fàtte benn yoon da nga dajeex moom mu ne ah bi nga ma defaree lii di ba mais c'est ça c'est ça te ñu wàcc suñu bopp quand am suñu gërmande te thème yi ñuy défendre mu lay cancer mm-hmm. cancer dafa laaj empathie ci entourage bi parce que diw am na cancer bon cancer vraiment et puis sax ni koy waxee kooku quelquefois d'une manière très brutale euh, psychologiquement mën na traumatiser kooku il faut éviter ça te préparer malade boobu préparer son entourage ne leen psychologiquement kii kat maladie bi mu yore il faut ngeen koy aar di ko dëfal parce que sinon dana si génne leneen loo xam ne muy gën a garaat feebar bi te cancer bu ànd ak stress mais c'est sûr que bi du mën a wér. jëkkër yi aussi ñu góorgóorlu parce que am na cas yoo xam ne gis koo xam ne jabaram na cancer du sein. yaa booy insister foofu góor ñi nga xam ne seen soxna feebar bi da leen di dab ñu abandonné leen. feebar bi da leen di ñu war am patience. am na si cas yoo ko xam ne sax nooy constaté jabar puisque cancer c'est une maladie de longue durée surtout certains cancers au moins minimum cinq ans yi soo doon ko dépassé te c'est très coûteux et tu vois psychologiquement te Sénégal ñu xamuñu psychologue comme genre maladie yi boo demee en Europe dañuy am psychologue boo xam moo leen di encadrer mais fii man amoon naa fi cas damay jël j'ai un psychologue boo xam ne ko solo ma koy woo na ko demal waxtaanal ma malaat bi dafa amee cancer